ñu toll ñu ngi yëkkati seeni loxo di ñaan yàlla eh, guddeeg bëccëg pour yàlla jéggal leen ñenn ñi di ñaan yàlla mu jox leen kàttanal ñu di ko jaamu ñenn ñi di muslu ci yàlla mu mbugal leen ci liñ koy moy ñenn ñi di yaakaar ci yàlla fay fayuk jëf li yu baax yi nga xam ne moom li ñuy jëf ñenn ñi ñoom zikrullahi moom ci la ñu nuur ba nga xam ne ay yeneen ñaan yi sax seen xel daju ko maanaam zikru ci seen bopp mooy seen ñaan parce que ñaan mooy jëf joo xam ne danga nga ciy jëlee fayuk yàlla mooy lu lay indi leer loolu mooy ñaan am na ñoo xam ne zikrulaahi ñoom ca la ñu sax waaw su guddi ga jotee ñu ngay naafila su bëccëg jotee ñu ngay jàng alquran walla ñu dem fu ñuy firee alquran ñu ngay déglu lu baax di def lu baax di joxe ay ndogu di ko tasaare fa subhaanallahi man waffaqahum wa xarama gayrahum ñu ngi tudd sellug yàlla mi nga xam ne moom moo dëppale lenn ci jaamam yi ñu sax ci lu baax ba pare xañ ko lenn ci ay jaamam ñii seen mbaax taxul ñële seen bon taxul kon bokki weeru koor weeru kàttan la weeru joxe la firnde bi mooy lan du weeru weeru dellu gannaaw waaye weeru dem kanam la firnde bi mooy danga koy jële ci sang bi mustafa sallallahu alayhi wa alihi bind nañu ci ñi bind débbi lislaam ne ghazwa muy xare bi ñuy tuddee fatxu makkata ñu ngi ko defoon ci weeru koor te xam ngeen ne loolu yombul bés boobu du bés bu yomb de sang bi fi nga xam ne fa la dëkk bëggoon ko lool ñu génnee ko fa mu dem dem madinatu war gàddaay fa ba ñëw nag war a ubbi makka xam ngeen ne loolu du bés bu sedd waaye yonent bi saa sallam mu ngi ko defoon ci weeru koor te ñu ne moom dogutoon de dafa ooroon te saxaaba yi àndoon ak moom itam dañoo ooroon te xam ngeen ne bés yooyu bokkul de xam ngeen ne naaj yi bokkuñ de naaju ku dem ba saudi doj yooya nga xam ne ñii ñooy ñooy ñooy jàmbaar ñoo doon jàmbaari tëdd ñii ñooy ñi jébbaloon seen bopp seen borom subhanahu wa taala o doguñu seen koor dañ daan fàndaa di dox ak seen tànk amuñu woon suñ waruwaayu tey yi amuñ euh, pileen yu ñuy naawee amuñ misaayil amuñ dara lu dul ay mbaam ay fas ay bax la waaw ndox ma dafay tàng dal ñenn ñi amuñ ko mbubb mi du muur seen yaram ah, ñu fàndaañu ci loolu di tasaare lislaam ay ñooñu wax dëgg yàlla fu ñu toll war nañ leen di leen delloo njukkal waaw moo tax fu ñu leen tuddee rek ñu ne radiallahu taala anhu wala fu ñu tuddee sang bi ñu ne sallallahu alayhi wa ngir delloo leen njukkal ci loolu ci la ñu nekkoon ba ubbi makka xam ngeen ne maarakatu badrinil kubra ñëpp xam nañu ko waaw di xeex bi nga xam ne moo njëkk am ci lislaam yéefar yi matoon nañ junneeg lu tegu jullit ñi ñetti téeméer ak lu tegu te xam ngeen ne booba yéefar yi ñoo amee alal yi al mushrikoon waa makka yi booba ñoo amee alal ji jullit ñi ay miskin lañ amuñ dara te nit soo nekkee miskin da ngay néew doole waaw doo am kàttan waaw dangay dangay yooy hmm? waaye ba ñu dajeexee ngir quwatu imaan seen ngëm yàlla gu dëgër seen dogu duma nañ leen dàq leen jàpp leen waaw ñetti téeméer fu ñu jàkkaarloo ak junneeg lu tegu ba pare war leen a mana ñii ñu rey ñii ñu jàpp ñii ñu dàq leen kon ñooñu am na lu àndoon ak ñoom te mooy dogu gi nga xam ne amoon nañ ko ci yàlla ak wóolu gi ñu wóolu woon yàlla in fact sax mboolem li ëpp ci xeex yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajee na ci ak ñi daan weddi yàlla ñi nga xam ne jaamukati xërëm lañu woon li ci ëpp yépp mu ngi xewoon ci weeru koor te terewut lislaam yëkkatiku na raaya lislaam yëkkatiku na xërëm wàcc na ci suuf te loolu lépp ñu ngi ko defoon ci biir weeru koor weeru koor ngir loolu su jotaan yonent bi sallallahu alayhi wa daanut feeñ ci mook saxaabaam yi daanut feeñ ci seen jëf maanaam li ñuy tuddee daily activities e, weeru koor daanut ci am benn impact time bi ñu daan xëy la ñuy xëy time bi ñu daan wàcc la wàcc lañ daan def la ñuy def te doo gis le doo leen gis ba mel ni dara dafa xew waaw la ko waraloon mooy mooy xuwa imaaniya nit su fekkee ne da nga jeex ci yàlla da nga seey ci yàlla eh, su boobaa sa bakkan bi dafay seey ci sa ruux gi su boobaa coono bakkan du du eh, eh, ruux gi daf ko daf ko wan na maanaam nekkatul loo xam ne nit ki da nga koy gis rek xam ko ci moom te loolu fala sang ba àggoon ña doon ànd ak moom itam foofa la ñu àggoon ba tax ñoom ñu amoon kàttan am laayif am muñ eh, ci seen jaamu yàlla yokk lañ daan jaamu yàlla wax dëgg yàlla eh, di joxe eh, mu nekkoon daal weeru développement weeru yokkute la woon weeru njàmbaar la woon weeru joxe la woon weeru victoire la woon waaye nekkutoon comme ni nga xamee ne lenn ci ñun noonu lañ koy defee tey nga xam ne weeru tayal la weeru nelaw la bëccëg bi ñu soppi ko def ko muy guddi guddi gi nekk bëccëg xëy na sax ci suñ fii la waaw waaye am na réew yoo xam ne soo fa demee ci suñ mbokk yi euh, rawatina ci ñu weex ñi moom da ngay da yéemu dañoo jël weeru koor soppi ko euh, ba nekk bëccëg bi nekk guddi waaw lu doy waar nga xam ne liggéeyu eh, liggéey sax daanaka amatut waaw office yi daanaka liggéey amatut balaa ngaa dem liggéey da ngay toog ba saa yoo ma ne waaw saa la neexee wàcc guddi gi nag moom lépp activités la làmp yi leer oto yi nag génn ñu dem ci marché yi eh, foo dem daal ba ba bër set nit ñaa ngi ci eh, marché yeeg xew yeeg lekkoo ak naanoo ba guddi ba ba fajar jot aha ñu commencer nelaw waaw léegoo-léeg nga gis koo xam ne dana xëy di nelaw ba ba ba tàkkusaan tusbaar sax du ko mën a julli ba tàkkusaan nga yeewu nga xam ne boo yeewu rek jant bi so nga ne yow yaa ngi woor loolu taxutoon woor jóg woor jóg woor li ngay daw moo tax a jóg woor coono bi ngay daw léegoo-léeg sax nga gis koo xam ne dafay daw coono masalan tey suñ ne tey dama sonn mu mel ni day naan diw dafa caalit wala naa déedéet loolu moo moo tax a jox weeru koor weeru koor dafa jóg pour nga sonn pour sa bakkan bi sonn nga xiif nga mar nga dem ba tële tële googu li ciy jàngee dafa bare toroxtaande googu nga xam ne dal na sa bakkan bi li nga ciy jàngee dafa bare daf la mun a jegeñ loo yàlla benn dana la jàngal ne ndek yàlla rekk rekk rekk moo fi ne ndax kii foog mar ni méttee nga mënoon koo def te kenn du la yëg nga xañ ko sa bopp te yàlla rek rekk rek tax loolu lesin la boo xam ne kenn xamul njëriñ li naka la toll waaye dana la jàngal beneen lesin ci ne ndeke man li ma daan lekk di naan di raay suma koll ndekete woo xiif nii la métti ak mar te am na suma yeneen nawle yoo xam ne li ma daan lekk di naan lépp ñoom ñu ngi daan xiif maanaam li sa xiif bii métti métti am na ñoo xam ne moom lañ dëkkee xanaa loolu kay nag bu weeru bu weeru koor yu jeexee war naa soppi sa jikko war naa tax nag nga jox yitte nit ñi nga xam ne amuñ nga di leen dimbale di leen yërëm waxuma la sax ci biir weeru koor bi waaye even bu weeru koor bi jeexee da nga war a continuer di yërëm ñooñ di dimbale ñooñ parce que léegi xam nga liñ doon dund li muy saf xam nga métit bi li muy saf su fekkoon ne jëlewuñu ci weeru koor lu dul loolu mu doy ñu waaw nga gis nit ki nga xam ne moo ñàkk itam ci biir weeru koor bi lesin yim ciy jànge dana ci jànge eh, uxuwa diiniya waaw brotherhood li muy jëriñ nga gis ku nekk ku am lum tuuti tuuti nga bëgg koo bokk ak ki nga xam ne yaa ko tane ñu dema dem ba dootuñ mën a xàmmee ki am ak ku ñàkk kenn ku ci ne kenn jooyatul loo lekk wal ak loo naan loo ñàkk-ñàkk bés bu ne am nga loo dépassoo te doo ci sonn waaw nit ñi ñi nga xam ne ñoo am ba géejal di jënd maalo di jënd suukar eh, lépp loo di jënd tàndarma loo xam ne nit a ko soxla ci weeru koor rek ñu di ko jënd di ko tasaare di yakkalante ay ndogook ak yu ni demee yooyu le eh, wax dëgg yàlla nit dana ci jàngee Eh, eh, ci wàllu jëflante ci biir society njëriñ yoo xam ne njëriñ yu mag la amaa su fekkee li taxoon a jóg koor nag eh, defut mënta mënta xew maanaam nit koo xam ne dem na ba weeru koor bi jee dafa mel ni oorut te loolu dañ ko def ndam te du